أنت في الأرض غريب هكذا قال الحبيب هب بأن العمر قرن أو عقود أو حقوب كلها حتما ستفنى ثم يجزك الرقيب فاعمل الخيرات دوما قبل ياتك المشيب كن صدوقا كن أمينا كن كريما يا لبيب كن بأخلاق الرسول ممسكا نعم النصيب عامل الناس بلطف داعيا كي يستجيبوا وضع البلسم maa ngi ñëwaat léegi ci kanam incha dafa am benn mbokk mooy seet si feeti rek ma daan faral di julli si ci jàkka ji waaye nag fan yii ñëwul ma laajte ko ñu ne ma dafa xaw a tawat ma bu ko seeti te ñëwaat léegi incha allah dégg bu soobee yàlla. bëggoon na la fee laaj sax dara. ah. bëggoon la fee laaj. bëggoon la lu mel noonu. Mhm. fan yii yëpp dama lay seetlu. Hmm. ngay dem ci mbokk moom ngay hmm. fan yii ci bisu tàkkusaan yi nii. bu hmm. bëggoon laa laaj ñoom dañ jox dara wala leen. anam ñen ñen dañ may jox dara. ñooñu ngay seeti dañ lay jox ah, ñi may seeti. waaw déedéet joxuñ ma dara dama leen di seeti rek xaaral ma toog pour mën la expliquer la maanaam Mouhamed boo gisee ku tawat rek ma dem seeti la. wala sax yenn saa yi may seete ay mbokk nekkul dara lu dul dama gis ne ay bokki jullit lañ war naa leen a dem nemmi ko ngir gën a wéyal ak cofeel suñ diggante waaye it ngir gën a wane ne lislaam diine la joo xam ni dafa bëgg ñun ñëpp ñu bëggal loolu rek sabab may dem di leen seete ji rawatina buñ feebaree waaye nag danaa la ci waxal ñetti xaddis yoo xam ne bëggoon naa nga bàyyi ko xel bu baax bi ci njëkk ñu ngi ko jëlee ci Ali ibnu Abi Talib yàlla na ko yàlla gërëm xadis bi Abu Daawuda moo ko soloo aliyun jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ni yonent bi alayhi salaatu moo wax ni amul benn waay boo xam ne ab jullit la mu dem seeti mbokkum jullitam bu feebar maanaam ba mu koy def nag xëy na ci ngoon la ko def nee na bépp waay bu jóg ci ngoon dem seeti mbokkum jullitam bu feebar nee na yàlla su borom day yebal juróom-ñaar fukki junniy malaaka maanaam mille malaaka ñu ànd waa ji di ko jéggalul yàlla maanaam juróom-ñaar fukki junni malaaka yooyu dañuy jéggalu yàlla dañuy wax yàlla yàlla na nga jéggal waa ji di seeti mbokkam di ko jéggalul yàlla di ko jéggalul yàlla ba keroog suba di jot te it yonent bay wax de mu ni tayit yiw wi nga xam ne waa ji fàggu na ko ci diggante boobu dana tax suñu borom dana ko ubbil ab tool bu yaatu bu naat ca biir aljanna nee na it su fekkee benn waaye dafa jóg ci suba xam nga ngoon naa la wax léegi waaye bu dee ci suba la jóg di seeti mbokkum jullitam bu feebar yàlla day yebal juróom-ñaar fukki junni malaaka ñu di ko jéggalul yàlla pour yàlla jéggal waa ji de di seeti mbokkam di ko jéggalul yàlla di ko jéggalul yàlla ba keroog ngoon di jot malaaka yi doo ko bàyyi te ci yiw woowu yàlla dana ko ci utal ab tool bu naat bu yaato ca biir aljanna mooy xadis bu njëkk bi ñaareel bi it um, yonent moo ko jàngale ba tey yonent mu ni bépp waay boo xam ne jóg na dem seeti mbokkum jullitam bu feebar nee na yàlla day tàggat am malaaka bu koy woo naan ko an tibta wa taaba mamshaaka wa tabawwa'ta min aljannati manzilan malaaka mi di ko wone ko ah yow day jëf ji nga jëf nii yàlla dana ci neexal sa adduna ak sa alaxira waaye jéego yi ngay dox ngir seeti sa mbokkum jullit mii day yiw wi ci nekk ak li ca sunu borom nar a fay day dana neexal sa alaxira lool tayit fàggu nga ci palaas bu kawe bu yaatu ca biir aljanna loolu la di wax xadis la boo xam ni ahmad ibnu maaja ak tirmidi solo bu mujj bi nag yonente bi alayhi salaatu sa toog ak saxaaba yi di leen nettalil benn xissa boo amoon ca jamono ju yàgg nee na benn waay dafa jóge ci dëkkam di seeti mbokkum jullitam waxul sax dafa feebar waaye mbokkum jullitam rek la dem di seeti ca beneen dëkk mu ngi mel ne que mbokkum jullit bu jóge Fass Barigo gii di seeti mbokkam ca Kawlax wala mu jóge Gosaas di seeti mbokkam ca Jurbel mbaa mu jógee Pikin di seeti mbokkum jullitam Géejawaay mbaa mu jógee Tëngéej di ko seeti Kër Masaar yonent bi mu ni benn waay moo ko doon def nee na yàlla yebal malaaka mu toog ca mbedd ma di ko xaar ba waaja di dox ba agsi foofa malaaka mi ni ko yow fan nga jëm waa ji ni ko maa ngi jëm ca dëkk sangam bi seeti sama mbokkum jullit mu ni ko loo fay wuti xanaa dangaa daa am lu mu lay jox wala dafa am bor booy faye ko ji waaja ni ko déedéet wutiwuma fa dara ci wàllu adduna waaye dama koy seet rek ngir bëgg ko te yàlla dongu tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko malaaka mi daal di wax ni man day ndawal yàlla laa gu ñëwoon ci yow ngir ma xabaar la ni la yàlla sa borom day nee na bëgg na la lool comme ni nga bëggee sa mbokkum jullit bii xadis boobu muslim moo ko solo maanaam yiw yii ma la fi nettaleel loolu rek a tax boo ko seetloo léegoo léeg su ma jullee tàkkusaan ba noppi def ma dara ma dem seeti benn mbokkum jullit ngir mën a faggu ci yiw yooyu loolu rek la waaye utiwu ma fa dara joxuñu ma dara waaye yiw wii ma ci moo tax ma di ko def di la ko bàyyiloo xelit soo ko mënee nga ko def ndax am na solo lool ndax ñun li ñu fa indi mooy faggu aw sàkku yiw jële ko ci suñu borom tabaraka wa taala yonente bi alayhi salaatu salaam ne woon bul xeeb dara ci lu baax loolu yëpp ñu lu baax la rek defal ndax doo ko perte dégg nga ko naa ko faral def incha allah incha allah baax na kon bu ci kanam rek incha allah dégg nga maa ngi ñëwaat léegi ba soobee nukrika ib wa'mal alhasanati yasfu haluka alkadir alajib jalis الصالح واكسب ريحه عطر وطيب أصغي للنصح قبولا هكذا الصدر الرحيب واصغي للنصح قبولا هكذا الصدر